donn ak lu tax mu war a donn loolu mooy sabab moom la ñuy tuddee sabab yi tax nit di doon sabab yi tax nit di doon nit soxna Ayda ci ci ci sharia ba mu jeex ñett rekk la benn bi mooy li tax nga bugg a doon mooy euh, sëya dox suñ diggante moom moo moo tax ma ma ma ma moo tax ma ma ma am àq pour mën a doon sëy moo doxoon suñ diggante loolu moo loolu ci ñaari boor lañ ciy doonantee jëkkër daf koy def jabaram jabar di ko def jëkkëram kon loolu mooy benn sabab bi beneen bi mooy nga ne dañoo bokk ci deret moo tax may doon na bokk ci deret kon bokk ci deret googu yaay dugg na baay dugg na euh, maam dugg na dégg nga doom dugg na brodas yi dugg nañ parce que benn nit ki nekk sa cosaan wala mu nekk sa banqaas wala mu nekk say car maanaam mbokk ni mu taxawee dafa mel ni garab banqaas la eh, dégg sa peer la ak i banqaas ak i car noonu la yàlla maanaam ni yàlla defaree garab noonu la defaree famille eh, eh, li suñ ne cosaan mooy peer mooy ndeeg baay mooy cosaanu nit ku ne suñ ne ay banqaas mooy ay doom suñ ne car yi mooy ñi nga xam ne dara dafa dox seen diggante ki gaañu waaye du mijjeet ñëw daay rek parce que doom dafa jóge ci baay daay rek baay dafa waa baay ak doom noonu la waaye soo ñëwee ci brodas ak ay oncle maanaam brodas su ma ne oncle fii nag namut ki bokk ak sa yaay ak baay wala ki bokk ak sa yaay baay waaye maa ngi namm ki bokk ak sa baay ndey ak baay wala ki bokk ak sa baay baay ngir ki bokk ak sa yaay kooku du dee doon na déedéet ki bokk ak sa yaay du la doon mukk ki bokk ak sa baay moo lay doon ci wàll googu yaay dong moo fay doon maanaam su ñëwee ci meen meen doon na amu fa meen kenn du doon yaay yaay dong mooy doon waaye système ba sax du doon brodaam du du doon abadan waaye su ñëwee ci baay nag ñëppay doon wàllu baay soxna ay def foofu fu sew la waaw dafa sew te waaye lu am solo la xam nga lu tax soxna ay da yàlla ku xarala la xam nga eh, su fekkoon ne meen dafay doon du du feyaa xam nga lu tax parce que waa meen ñu ngi am seen bàyyi bopp naka la ñuy doonee seen yi bopp ba pare ñëwati di bokk ak ñeneen ñi seen seen baay kon ku nekk na doon baayam na do wala na doon geñoom baayam wala geño gi soo uh, loolu moo tax sharia tëralee ko noonu kon da nga gis ne eh, naka lañ ko tuddeeti da nga gis ne eh, eh, ñooñu ñooy ki wax ne deretama ci boole bunt yooyu rek lay mën a bokkee mooy dafay wax ne peer la mooy cosaan la wala mu ne banqaas ci banqaas yi laa bokk wala mu wax ne ci car yi laa bokk benn bu ci ne nag suñ demee ba mu dëggu euh, mën naa am da nga doon foofu it mën naa am ndax mën na am dañuy waaw parce que dañuy iirante foofu itam maanaam dañ la ko jox rek mbëmbastal ci tàmbali bi waaye tey masalan ma jox la ci rek misaal donte àggaguñ ci let seene nit ki gaañu na bàyyi na papaam bàyyi na brodaam bi mu bokkandee ak bàyyi xanaa waxoon naa la fi ne car yi dañuy donn bàyyi ñëw na damay donn ñu ne ko d'accord parce que yow yaa jur e, broda bi mu moom ndee bàyyi ñu ne ko déet mënoo ànd ak sa bàyyi di donn sa broda kii moo ko jur manoo xa ànd ak moom di ko doon mukk su fi baay ji nekkutoon kay aha waaye ndem baay jàng fi yow dootoo laalati dooto dootoo laalati ma jox la ci beneen beneen misaal eh, waaye ngi nii deena baxi fi doomam bu góor waa ji ñëw taxaw ñu ne ko dama bugg a doon lu dox sa diggante ki mu ne mooy suma baay ñu ne ko d'accord nañ keneen ñëw ñu ne ko lu tax nga bëgg a doon mu ne maa moom ñoo bokk ak baay ñu ne ko déet doomam du fi ne doomam bu góor du fi ne ba pare ngay ànd ak moom di doon baayam naka ngay doonee sa baay yow ba pare ñëw àndaat ak kii do di doon di doon baayam loolu du fi mën a am demal loolu mooy euh, ñaareeli sabab bi euh, waaye fii nag bunt bu yaatu la boo xam ne fala fala mbir ma si ci miraas eh, soo ñëwee eh, beneen sabab bi ñetteeli sabab bi mooy eh, li ñuy tuddee njaam yaa waaye boobu alhamdulilah amatul rek masalan tey nit dafa dee nga ñëw ne nit dafa dee nga ñëw ne damay doon nit dafa dee nga ñëw ne damay doon ñu ne lu tax nga ne parce que kii suma jaam la man maa ko jëndoon man maa ko jëndoon alalam jéem maa moom ñu ne la d'accord nañ kon ñetti sabab mooy tax nit di doon ñetti sabab mooy tax nit di doon na benn bi mooy eh, eh, buum ak buum moo doxoon suñ diggante beneen bi mooy dañoo bokk ci deret beneen bi mooy maako moom foofu ñetti ñetti sabab yaa nga soxna Ayda kon ñu dem nag ci bu mujj bi mooy li ñuy tuddee lan nag mooy disqualify nit ku ku waroon a ku qualify yoon lan moo lay disqualify ba dootoo doon nati ah, dafay am hmm, ba pare ñu tere la ne doo doon ah, ah. waaw maanaam xam nga wax nañ la fi ne hmm. eh, sabab yi tax nit war doon na mooy buum ak sëy wala deret wala moomeef kon kay loolu li nga li nga ci mën a dégg mooy saa yu loolu taxawee rek boroom dafay doon waaye nag am na charte bi mooy dafay fekk eh, eh, defuloo dara lu lay disqualifié benn bi mooy lii disqualifié nit itam ba du doon ñett lañ benn bi mooy eh, naka lañ ko Euh, euh, naka lañ ko tuddee rey nit ku rey ki nga war a doon doo ko doon ah, donte donte waroon nga ko doon parce que qualifié nga waaye mhm. eh, dañ laa disqualifié bam des baay ak doom baay su reyoon doomam it dana ko doon ah doom bu reyee baay nag déedéet hmm. parce que baay mooy sababu ñëwu doom baay moom moo xéewal doom maanaam xéewalu doom ci moom la jaar ñu fayee ko loolu bu dul moom nag képp ku rey ki nga war a doon doo ko doon dañ la koy xaj xam nga lu taxam li ci njëkk mooy dañ lay tuumaal dañ lay tuumaal ne ndono ndono waaw loolu la yàkkamti taxit soxna Ayda soo xamee liy dox ci jamono bi ak a bare mhm. bare na lool léegi mhm. nit koo xam ne soo demee ci réew yi nga xam ne jikko amu fa ni bare na nit kuy rey nit fekka da da nga xam ne kii alalam gannaawam maa ko moom rek nga yàkkamtee jot alal ja nga fexe ba rey ko pour mën a jot alal ji <laughs> waaye ñooñu it suñ defee seen investigation ba xam ne yow yaa ko rey ñàkk nga alal ja de hmm. moo tax sharia tëralee ko noonu kon benn ngoo xatlun mooy rey hmm. ñaareel bi mooy ixtilaafu diin mooy ñàkk a bokk waaso loolu daf lay xañ dono ñaara ngi nii ñoo bokk ndey ak baay waaye kii jullit la kii dafa nekk ci beneen diine duñ ah. duñ doonante duñ doonante yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ñaar ñu bokk diine duñ doonante ba faw kenn ku ci nekk say mbokk ñoo lay doon te say mbokk mooy ñi nga bokk diine hmm. waaw foofu soxna Ayda ci ngay gisee bokk diine naka la amee solo te alal jooja euh, let seene nit ki dafa gaañu moom jullit la mboolem ñi des ci ay bokkam kenn du ci jullit mm. kenn du doon ci alalam jooja alalam jii naka lañ koy def su fekkee ne réew la moo xam ne dañoo am lu ñoo tuddee baytul maal mooy trésor fi ñoo denc alal yu demee noonu pour di ko séddale jullit ñi mhm. foofa lañ koy def di ko jox jullit ñi waaye mhm. kenn kenn du ko doon ci ay bokkam bon bon bon euh, jëkkari jullit bu am jabari euh, bu nekkul jullit jabar ja du ko doon na ñu bokk diine daal duñ doonante mhm. ñu bokk diine duñu doonante had been in uh,